le 31 décembre lay doon fii ci arène nationale diggante Boy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak caatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le 31 décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production. aja asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu di leen ziar di leen bëggee ñu seen Kewel Info kilifa du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu dawetu Moussa Chidé nunu Cheikh daal du nuyu kilifa diine yëpp tey ñu ngi fii si Médina ah ñëw seet si ki nga xamante ni moom mooy père gannaaw ba njële ki nga xamante ne moom mooy jël ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy ci combat bi ndax gis nañ ne depuis lors moom moo ko préparé moo ko indi euh, dañ koy bàyyi mu nuyu ñu dugg si waxtaan bi père maa lay euh, maa ngi lay fay euh, maa fii à chaque fois rek du ma koy waxee am kontaan à chaque fois rek dajeeg yow ci waxtaan bi xam mooy làmb di ci gis rek à chaque fois liggéey bi nga ciy def avant ou pendant yëpp da nga ciy nekk te loolu moom mooy sport donc ñu dalal la fii ci Médina nga gis xale yi nuñ ko waree ba tey donc euh, di nuyu ñëpp rek vraiment di jaare ñëpp di kontaane ñëpp rek. père euh, fi may njëkkee ak yow muy Zarko Diène Kairé combat boo xamante ni avant loolu amoon ngeen ay yeneen proposition ñu gis ni ñu jékki-jékki combat boobu taxaw Diène Kairé Zarko combat boobu père moo ko jël wala yeneen adversaire yi ñoom doon proposé da ngeen jàpp ni Zarko moom moo gën combat yow mais ci combat Diène Kairé nan ngeen def ba jël combat boobu. waaw pour dire vraiment bi ci njëkk dañuy remercier Zarko bu baax a baax a baax parce que li tax ñu koy remercier euh, adversaire bu nekk rek yaay sa peut-être yaay sa trésor moroom waaw ñu gis ne. Euh, après suñu combat ak Modou Anta adversaire yi ñoo xam ne dañoo waroon bëri ñoom nanguwuñu bëri ak ñun moom mu jóge ci combat trois combats yu logique yoo xam ne yëpp da ko gagné euh, nangu ñu jox loxo pour bëri ak ñun donc ñun dañ ko ci sant ci loolu. parce que mënoon na xool feneen ñu ngi ko doon proposé yenn adversaire pour dire vrai mais ñu wax ko yéen mën na ma amal problème mën na bëri ak yéen donc combat bu logique la woon combat jànq la woon amateurs yi bëggoon ko ñu ne ñu xam ne toog bañ a bëri arrangé wuñu mënoo toog jóge si victoire loolu amul si làmb jóge boo boo jógee si victoire rek da nga war a bëri de suite mais nga jóge si victoire toog presque trois ans bëri woo am ku ñëw ne la kaa ñu bëri koo xam ne def na fi def na jaloore mais c'est logique ñu bëri ak moom loolu tax loolu kese moo tax ñu jël Zarko. ci côté préparation bi par rapport ak Zarko gis nañu Zarko kuy bëri ak moom guddi yu ñu toll il faut nga pare mais ci côté préparation nan la demee woon métti na wala métti. waaw côté préparation moom pour dire vrai on était prêt à 100 pour cent. pour nga wax pas sur sax pour nga wax si 100 pour cent sax du dafay xaw a jafe mais man mun naa taxaw ne à on était prêt à 100 pour cent physiquement jën pare woon na mentalement moralement ba pare li nga xam ne loolu la li mu jafe woon yàlla dimbali ko mu am ko muy public ba xam nga démb ku ñëw stade xam nga ne li jën indi bu doon bi muy door de départ bëre moom la daan indi heure bi kon dépassé na fii heure bi mu ngi si si kaw mais public bi. li ñuy wax ne xëy na lu jot yomb ñëw gunge ko ak doole ñu kontaan si nag trop di leen tey bu ñu naan defet bi sax metti nañu sax looloo ñu tax ñu metti waaw pour une première fois mbooloo mu toll noonu topp ko te mu def yàgg def ay jaloore ñu comprendre ne kii champion la ñu daw topp ko donc loolu lañ siy metti mais ñu ngi leen di gërëm di leen remercier vraiment gis nañ mobilisation ak ñi si jàpp ñëpp gis nañ leen macha allah. mais ci ce que metti woon na par rapport ak Diène ndax gis nañu Diène depuis ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Anta ci cadre sport gis nañ dafa changé waat par rapport ak yeneen euh, poids yi mu doon jël loolu est-ce que kii dindi woon ko yomb non du du question boobu sax booy xool euh, bi combat bi taxaw am na am na am na nu mu meloon après comme bi ñuy liggéey parce que combat bi bu nit ñi fàtte ne def na onze mois de préparation combat bi def na onze mois waaw loo xam ne un sportif bi nga xam ne da nga war da ngay dund haut niveau onze mois yooyu mën nga fi changer normalement donc état bi ñu ko gis yëpp lu normal la boo xoolee dem lépp a ngi fi woon au xam nga muy moral bi muy vivacité bi muy puissance bi lépp a ngi woon démb si jéen lépp lépp maanaam lu athlète di am pour am ndam rek boo xoolee lii nga ko parce que aussi ñun staff bi xëy na per kay da ngeen gis nii rek mais si ginnaaw am na ñoo xam ne dañuy toog di liggéey di waxtaan di joxante xalaat on a un staff solide waaw mais nag euh, staff solide mun nga ko am mais jour ba ñëw nag ah l'athlète peut commettre des erreurs te c'est c'est ça qui nous est arrivé il a commis des erreurs si biir làmb ji. la a commis des erreurs sur si euh, làmb ji mais bu ñu ñëwee ba tey ci côté préparation. gis nañu jéen ci côté sortie yi mu def yëpp dem na benn instant boo xamante ni ñu ngi naan est-ce que abrégé wul li nga xamante ni côté entraînement yi ndax poids bi mu yoroon ak état physique. non mënu ko abrégé parce que moom làmb euh, métier am la du moo xam ne day bàyyi ba am combat entraîné yabu yabu ma man yabul ay supporteurs am. yabul yabu ma yabul ay supporters am yabul staffam a chaque fois dafay entraîner mais xam nga euh, lamb moment yi ngay toog deux ans bëriwoo yooyu yëpp dafay joué jóge ci combat toog deux ans dugg trois ans bëriwoo yenn yi nga xam ne les moyens qu'il faut nekk fi yooyu mais <laughs> dafay feeñ te góor gu nekk gor nga il faut que des fois gars yi di liire foofu est comprend nga mbër yenn saa mu jóge si benn amee toog yenn diir bëriwul parce que. les les mais les rentrées d'argent mais loolu dafay mooy yokk mbër mooy tax mbër préparation bu baax mooy tax mbër di lekk lu baax mooy tax mbër dem ci médecin ñu koy kii lool mooy problème bi boo xoolee bi mu amee combat rek lépp ñëw au normal parce que c'est ça ki am combat ki jot avance ak ki jotul avance mënuñu doon benn donc ba ñu jël ba mu jëlee avance bi ci la lépp naaj lekk gi normal. xam nga massage yi baax xam nga le staff ñi nga xam ne ñëw ko wër ñëpp ku ci ne def si liggéey normal te yooyu sport dafa laaj ay moyens pour dire vrai au niveau bii ngay gis nii ci kaw pour joueur am yenn yenn niveau yi sax il faut nga am ay c'est les moyens mooy def sport c'est les moyens mooy def sport mais làmb nag mooy moo baaxoo euh, moyens mi ngi ñëw bu combat bi jegee ba si dernière euh, semaine yi si la ay moyens yi di ñëw mais je pense que ne daal comme li ma la rek li war li ñu waroon yëpp def nañ ko il était bien osement yi mais mais onze mois mënoo ko jël te ñu gis si yow changement nga jël combat onze mois nga ñëw mënuñu gis si changement ah kon y'a problème mais pendant onze mois on a bien travaillé il a bien bossé ñu liggéey lépp ci biir làmb ji lépp ñëw na ñëpp kontaan nañu seet si parce xam nañ ne kii liggéey na xam nga maa ngi liggéey sax caaxaan la maa fii euh, am na ku koy wax si les communicateurs Maxime Rane maa ngi entraîné caaxaan la boo sumee rek war nañ xam ne liggéey nga wala liggéey mais le gosse a bien macha allah. le boss a bien bossé ñu gis ni Zarko ku ne Zarko ñu gis ne dafa nekk athlète boo xamante ni nit mënul sax complet mais gis nañ Zarko heure buy ñëw ci làmb mhm. day am day indi état ndax da dem nañ ba benn instant sax ñu ne Zarko moo gën a diis ki nga xamante ne moom mooy Diène Kaïré mhm. waaw xëy na ku si nekk da nga am ah, gis-gis la rek ku nekk rek dafa am nu côté bu muy gisee mais ñun Diène bi ñu gis démb vraiment gis nañ jën bu indi état de forme bu bu normal bu indi masse bu normal bu indi loo xam ne daal moom sax moo gënoon bëgg ko combat bi euh, Zarko da ko ko gënoon bëgg maanaam et puis de confiance joué na ci làmb ji il a été il est il trop trop trop confiance bu ma ëpp boobu sax moo tax man mun naa ne moo tax sax mu ñàkk làmb ji parce que concentration bi waroon am pour mu xam ne kii magu mbala te cuunewul te war na war na ko war na xam position yi muy taxawee Euh, euh, excès de confiance moo ko indi mais je pense que Symbiose ak doole démb non Zarko moom ëppale wuñ dara pour dire vrai nag malgré Zarko moom indi na lépp indi na masse indi na doole ak l' bi nga xam ne joué na ci combat bi macha allah. Euh, l' expérience joué ci combat bi mais père dañoo gis ki nga xamante ni moom mooy Diène Kaïré par rapport bañ koy njëkk gis. si la gën a amee poids par rapport ak démb. maanaam mi ñu koy njëkk a gis. comme bañ koy gis jël ko écurie ba. ak tay ñu gis dafa xaw a wàññiwaat quoi lan la. voilà très bien très bien loolu yëpp ci liggéey bi la rek xam nga euh, sport ay étape la daa am étape boo xam ne lii ngay liggéey am étape mais boo demee ci ba ci finition yi nag travail rapidité yooyu ngay kii rapidité yi contact yi mooy tax nga daal di wàcc te wàcc boobu ngay wàcc yëpp doole la waaw mais na ngeen ko gisoon masse bi rëy ñu ñëw ba ci capandaw gi mu wàññi lool lool loolu liggéey bi la mooy lan mooy contact yi dóor saak xam nga physique bi loolu nag bu dee ba ne au top da gis da ngay wàcc muscle yi centré laa li nga bëgg a def yëpp da nga koy def. ñu ñëw ci combat bi ñu gis ni combat bi Diène dañ doon wax bu attaqué Zarko peut-être mën naa am li mu bëgg ñu gis ni Diène kon ni yeneen mbër yi bëreeg euh, ki nga te ne moom mooy euh, Zarko dafa bëree ak ñoom parce que daf koo déglu sóoraale ko euh, par rapport ak Zarko te Zarko ku bëgg daal daan il faut nga agressé ko Diène ni mu bëree démb ban erreur la def. waaw man li ma gis ne xam nga euh, adversaire bi si njëkk mooy euh, jox na cër Zarko c'est normal parce que face à lui c'est un c'est euh, man li ma erreur ma gis si làmb yëpp ah li ma si mën a wax mooy bi ñu jàppantee taxawaay bi rek moo indi erreur bi taxawaayu jéen kese moo indi li erreur bi non taxawaayu bëre bi maanaam taxawaay bi ngeen taxaw nga taxaw si di jonn sa ñaari tànk tolloo mbër mbër mbër kenn du bëree noonu. fo erreur bi foofu laa amee parce que mënoon na mënoon na indi écart maanaam tànk bi ngay bëree bu bi ngay jiital day na ci kanam bële nekk ci ginnaaw moom mooy tax nga am assise mais dañu gis ne ñaari tànk yi dafa dafa dafa dafa nekk au même niveau te loolu baaxul ci bëri gis nga waa bi mu siggee xool ci biir bëri xam ne ñaari tànk yi jege yaatoo na si la si la exploité loolu. Mhm. erreur boobu daal la def. erreur boobu def si bëri bu dul loolu amul leneen lu mu def lépp normal na. jéem na xeex waaj ji waa ji waa ji dafa daw xeex bi gis nga boo xoolee da jéem déclenché pour xeex ak moom mu daal di wàcc ñu ñu jàppante. ñu jàppante ku si ne téye ba mu dëgër donc li waroon def moom mooy ñaari tànk yi ubbeeku nga xam ne day am day am assise manque assise boobu moom moo tax waa ji bàyyi ba tànk yi tax dajaloo mu daal di ko pàdd. te faussage boobu bu fekkee ne nag sa ñaari tànk dafa dafa dafa nekk au même niveau mais bu ñu la faussé noonu c'est normal nga daanu c'est normal nga daanu. gannaaw sax ndax euh, ñi ngi doon wax ci combat bi amoon na ci chance mais ñu gis Père Kairé ñu bari daam luñ ci reproché Père. que ni dafa bëgg njaboot de trop moom que ni Diène Kairé paa bi il faut mu may ko liberté trop ndax day day yokk booy bi pression loolu lan nga si. ah non yi dañuy wax rek Diène dafa am mental man li may def yëpp xam naa ko lépp lu may def xam naa ko. ñeneen ñi nag ñoo dul xam wala ay waxu supporter wax yi mais Diène amul benn pression bu ma koy yokk dama bëgg aussi nit ñi xam ne Diène amul benn pression bu ma koy au dama koy dama koy motiver. man maanaam li ma am ne man su ma ko amoon su may bëree sama papa ñëw sama kanam non kooku motivation bu rëy la daf may da lay motiver dama koy motiver rek yooyu may def si pour le motiver mais amu ci stress gis nga pour dire vrai bu ci amoon stress maa dañuy waxtaan Diène dañuy toog di waxtaan nii comme ñaari comme ñaari frère voilà. xam nga su fekkoon ne gis na ne dama koy kii dana danaan na papa kaay xoolal mooy bul defal léegi bi muy bëreeg moo daan lan la ma wax père bul génn géew bi xoolal kon est ce que bu ma gën ma koy stress est ce que ko wax dafa ne xool taxawal xool li may koy daane tey li nga li ñu liggéey kii dama koy daan taxawal xool kon kooku y'a un complicité rek mais nag au fait nit ñi nag ku nekk ak ni ngay gisee je les comprends mais pour pour dire vrai bu doon su doon dama koy yokk express benn trente minutes secondes wala kii non kon du ma def lool mais je le motive pour ma xam ne tey ànd nga ak sa baay danga war a am ndam ànd nga ak sa baay maa ngi sa kanam nekk sa ginnaaw ne si côté yi puusal xuusal gañeel ko bi ñu ñibbi macha allah. ñu gis ni Diène daan na mais ba tey kon ni ma ko waxee woon sànq mi ngi ci yoonam. da gis nañ ay yeneen proposition yoo xamante ni. ñu ngi ko ko doon wax ci yeneen adversaire yoo xamante ni malgré nag bëri na ak ki moom mooy Zarko ko ni ma wax sànq. di ko félicité bu baax a baax di encouragé Diène ndax ko li ma wax rek mental bu foor la yor waaw na nit mënu koo déstabiliser mais ñu gis ni père dafa daanu mu ne la papa aw ma chance ci làmb ñu gis ni nga ne lépp yàlla la loolu instant moo moment boobu loo yëg waaw li ma yëg mooy que dama xam ne defet bi la rek xam nga communication am démb sur le champ ak tey xam nga wute na je pense que ne yow bi may wax loolu si géew bi yaa ngi taxaw maa ngi la dégg yaa ngi naan maa ngi dégg say say baat quoi maanaam émotion bi la ak ak defet bi ñaata yoon nga dégg mbër daane ne bàyyi naa làmb wala ngay tekk gàllaa ji di sànni parce que sur le coup coono bi nga daj ak li nga ak yaakaar bi nga am ak mboole mi la topp maanaam loolu nit ku nekk nit nga mais après boo toogee xëy nelaw ba doyal say say nit say am di jàmm ñëpp ñëw wax ak yow après da ngay giif donc je pense que tey giif na aussi man ba muy wax loolu man je savais que ne waxu ku am déception lay wax mais bu subaa bu xëyee da ciy génn bi muy wax da nga koy confirmer yaakaar ne Zarko dina ko daane nii te dina ko daan. non mosu moom mosu am yaakaar boobu ñun ñi si nekk ak moom man mosuma am yaakaar boobu du kenn ah, boo gisee démb Medina ñu ngi leen di gëmal Medina boo fi ñëwee si guddi da nga naan da nga naan xanaa fii nit dëkku fi xam nga dèjà yooyu boo gisee mbër daanu di wax yooyu yu mel noonu tax parce que yaakaar bi xale yëpp ne woon dañuy daan aussi li ñu liggéey ñun ñu gëm ne dañuy daan donc li am déception la dañ koy nangu xam ne noonu la woon. moom il l'a compris mi ngi nii tey mi waxtaan ak nit ñi et puis ses moroom yi ñu ngi koy réconforté mi ngi kaf mi ngi dee li des nag ñu xoolaat suñu kanam rek ce qui am incha allahu rabi. kon wax naa ko sànq ne ko booy safi wala naa nga <laughs> fu mu jëm fu mu jëm may réer jër fu mu jëm instant bi ba tey fi mu taxaw woon lay taxaw wala booy safi instant bi commencé def ay kii comme sar Zarko malgré daan na jéen mais jël na ñaa bu ndaw est-ce que tamit mën nañoo xaar ngeen jël booy safi booy prouvé. waaw xam nga làmb moom léegi comme li may wax rek business la rek. lii liggéeyam la c'est son pour dire vrai liggéeyam la Diène à part làmb ji amul leneen xanaa yenn business yi muy def ci suuf yoo xam ne moom moom moom xam na waa miiru boppam la yaa ngi may dégg donc ñun de pour dire vrai tey tey laa la tey am na sax ñu ma dégganteel léegi bu buñ conclusé woon non bu subaa ma ne ko ñun jël avance ñu jël avance bi ñu entraîné ji mu bëre ji waaw waaw non liggéeyam la te man tey ji yow micro bi nga yor nii ku la ko nar xañ tey Fatima. ku la ne ku xëy ne la bàyyil bàyyil micro bi kii bi nu mu tudd sax <laughs> waaw ku ñëw nel ba si ki tey kéwél bokkatoo ci doo kii non kon da ngay raag ba naaw wala ngay sànni ay xeer <laughs> donc làmb ji liggéeyam la euh, on va continuer ñu ñuy waxal su fekkee ne lu concret la noo bu subaa dañuy jëlaat avance bëre ji de ah ñaari avance dafa xaw ak ñett dama ne promoteur je lance un appel ku munte doon ñu pare nañu logique parce que parce que pratiquement pour di nañu waxante dëgg mënuñ mënuñ fi nekk 3 ans 2 ans ba leen législation yooyu yëpp dafay feeñ ci làmb ji bu doon ngi compétir compétir compétir ko mais kon lii sax mën na du demee nii waaw donc léegi ñun erreur boobu am du si erreur sax parce que bëggoon nañu bëreel ñu ñu war a bëreel. kon ñu naan yow euh, koy denc. non ban denc foo ma sa gis bàyyi mbër di denc mbër foo ma sa gis professionnel boo xam ne sa doom dafa war a non bis naa génne du génne jéen comme am yenn combat yoo xamante ni. bis bu ko jox non comprendre ma foofu. comme comme que ni euh, carrière bi instant fi mu toll. paa bi la parce que ci problème adversaire choix. gars yi gars yi ñoom dañuy wax paa bi rek gars yi rek doo xam nga mais duñ la wax lu logique xam nga c'est-à-dire on est dans un pays boo xam ne bu bu football bi jotee Sénégal la ëpp ay entraîneur bu làmb jotee Sénégal la ëpp ay entraîneur mais logique bu wax jotee ñoo fii waaw yaa ma gën a xam. mais ñun en tant que tel xam nañu yéen téye ko du suñu avantage du suñu avantage l'essentiel daal maa ngi koy wax di ko waxaat pare nañu pour jël beneen avance te incha allah danañ ko jël pour bëre fin saison. loolu moom dama dinaa ci xar sama tànk tubay te moom xam na loolu rythme bi rythme bi mu nekk nii non duñ duñ bàyyi mu nelaw. il va continuer gën a renforcer waat gën a nekkaat ci boppam ba prochain adversaire incha allah ñu am si ndam rek le sport la c'est le sport qui a gagné. on félicite Zarko di encouragé Diène xam na ñun actuellement on est bien ñoo ngi toog ak am di jàmb yi mbokk yi waxtaan kafle defet bi fàtte nañ ko mu ngi si ginnaaw ñu xool si kanam di préparé nag amaan nañ beneen ñaari sortie ah muy bébé Diène waa bébé Diène day bëri le 24 waaw ndeysaan <laughs> ah d' accord d' accord d' accord man kay gis naa gis naa titin bi keroog mais j' ai pas. man j' ai man kay maa ngi naan waaw bébé Diène tey. tey kii la. tidil mais lan. Ah, ok yaa ko def nga pas j'avais pas compris j'avais gis naa. macha allah di ko ñaanal ndam. di ko ñaanal Mbagnick di ko ñaanal alliance Diène ak xale yi ñoom abada équipe bi moom macha allah xale yi moom ñoxor bëri nañ ay combat ah. donc euh, bii benn la woon ci combat yi perte nañ ko yi des nag dañu ñaan yàlla gagné ko. pour ndeysaan relever le défi incha allah. ok may jeexal ak yow bal maa jël tonton. mooy laaj naa ko sànq ki xam te ne moom mooy Diène Kaïré mhm. gis nañu euh, loo xam te dafa commencé am ci biir Médina muy côté rivalité gi dégg nañ démb ñu ne am na ay euh, kii yi ci amoon ci camp Ada Fass ak ki xam te ne moom mooy waa Médina yi sante xeer yeeg yooyu noonu Diène wax na ci mais en tant que porteur de voix en tant que papa kon à chaque fois ni ngay waxee wax ju rafet loolu nan nga ci gisee ak tamit affaire yi ni mu commencé ravager. waaw li may li ma ci wax rek mooy que euh, di ñaan xale yëpp ñu am retenue retenue nag mooy lan bu dee olof mooy ñu am dal xale yi nañ am dal xam ne ñoom ñoo bokk gox bi xanaa xam na si taarixu la benn benn écurie moo amoon ndakaaru moo doon Fass ñun ñi jaar nañ fa mag mag ñi fii dañ daan jóge Medina di supporter ji Mbaye Guèye ñiy jóge Gueule Tapée fu ne di supporter ji Mbaye Guèye donc làmb dem na nag làmb moo yaatu ba ku nekk am sa gox wala ku ne am fu mbër nekk nekk fa mais nañ ko tëj nañ ko teg si cadre sport man de dëgg-dëgg pour dire vrai xeexlewu ma kenn xeexlewu ma Samba xeexlewu ma Demba waxee nu ñaaw yi ñuy waxee ci internet sax nañ ko bàyyi jaru ko mais ñoo bokk benn benn secteur ndakaaru la te te pour dire vrai ah fii boo jógee ñëpp jóg fii mbër mu fi nekk fii tey boo jógee rek ñëpp lay topp kon ñoom ñoom ñoom bokk lépp di kon yenn yoo xam ne je lance un ñu bàyyi xaal santante xeer ñu bàyyi xulloo ñu bàyyi xeer ñun logique boobu de mosul bi ñuy bëri ñun logique boobu amatul te ñu ngi leen di ñaan logique boobu ñu xool ko si ñun xam ne ñoom bokk ndey ñoo bokk baay que làmb moo ciy gagné ku ci am ndam fii Ndakaaru mooy fete ku ci am leneen nit mooy metti dem bi deen daanoon fi mbët Ndakaaru fépp sentir nañu defeetu xale bi donc nga xam ne kon lépp benn la vraiment jëf di kontaan si yow ak waa Kewel Info merci. maa ngi lay fay. Euh, di kontaan seen teewaay bi fii euh, man maam laa si moom man naa leen di jaay laa kii parce que maax yaayam la woon te yàgg nañ ànd yàgg nañ uuf jéen jéen man daanaka sport basket mooy sama kii jéen moo ma yóbbu si làmb dama ko gis mu nekk xale di foye làmb fu ne mu dem bëri ji fa mbappat ba siin dafa daan dem compétition bu ne def na ko mu nekk passion si laa gis xam ne kii xale bu talentueux mu nekk fi ñu topp ko dem naa ba fekk naa ko fu ne si mbappat si c'est la première fois mu ko si mbër si moom la yem donc euh, lu ñu àndeex moom dañu xam ne talent la d'abord deuxièmement mu nekk xale boo xam ne dafa am yar Médina bi yëpp ñëpp ñoo d'accord ne kii dafa yaru Euh, am pas-pas si def am engagement moo entraîné xale yi yëpp Médina bi yëpp topp si gannaawam loolu daal nekk na si koñ bi ñu nekk nii fii ñu nekk nii ba si ginnaaw ko fii Médina bi yëpp ñëpp ñëpp dañ ko doomo ndax yaram euh, ak yëg nit doomu aadama noonu la wuy juróom meloon euh, donc si tànkee rek la topp waaw. loo koy wax ba moom laa ko wax léegi sànq laa gisee moom nekk. lii sport c'est le cadre sportif c'est le sport sport da ngay am victoire di am défaite bu la lii ça prépare à d'autres grandes victoires parce que mobilisation mu am li ko li ko metti sax mooy mobilisation mu def démb xal Médina yëpp fa tase fii Dakar yëpp du ma ne Médina sax Dakar yëpp fa tase fii mu yóbbu euh, peut-être loolu moo ko metti mais te ni mu daanoo dafa bett ñëpp parce que mënoon nañ imaginer mu daanoo mais pas de cette manière là parce que on lui connaît une certaine technicité boo xam ne mënoon na bëre mënoon na ñàkk am ndam mais du daanoo nii kon lii mooy surprise général bi mooy ni mu daanoo te loolu du man rek maa ko wax même les spécialistes ñi xam lam xam ne ni lii mbetteel la si moom mais nag euh, c'est la lutte c'est le sport défaite ak victoire ñoo ànd ñu ngi koy ñaanal yàlla yii di ñëw mu am si ay ndam yu bari di féliciter aussi ki xam ne moo la doon bëril parce que wax yi mu wax wax yu rafet la il a parlé en sportif parce que Zarko bi ñu nañ ko am na wax yu rafet yu mu wax jëmale ko si moom jëmale ko si waajuram donc ñoom si suñu ay doom lañ dañ leen di ñaanal yàlla yàll na yàlla gën a leeral seen yoon may leen ay ndam di remercier nag ñi nga xam ne jàppale nañ ko parce que autorités yi nekk Médina wante je parle du maire parce que moi si suis conseiller municipal à la Médina le maire oo na ma oo jën ñu taxaw mu ne ma dama bëgg kii sama doom la maa ko bëggal sama bopp te loolu du tey la ko commencé wax avant combat yi su ñëw yëpp dañ daan ànd sax ñëw mais dafa fekkoon ñu am une activité le jour du combat dafa amoon activité municipale moo tax maire accompagné ko mais li mu war la waroon def wax moom yëpp def na ko di ko sant di ko encouragé aussi di ko wax ne que lii bu ko jàppe dara waaw bu ko jàppee dara te prochain combat yi si yow dina gën a jàpp dina ko gën a wan ne que Médina doomu na ndam rek lay am ndam waaw. merci beaucoup. Euh, gannaaw ba ñu kiiwee jëlee suñu tonton ah père dañ lay bàyyi euh, nga tëj kàddu gu du kàddu kàddu gu mu gi waa kàddu gi mujj gi rek euh, maa fi mooy que di gërëm di sant ñëpp euh, je pense que ne tey contexte bi làmb di doxee euh, koo gis yenn si muy nu yenn fan si club yi yenn supporters yi am na ñu nekk si ginnaaw jàppale la saa ñi la jàppale loolu mbër mënu ko cachet mbër mënul préparer làmb mënul regroupement mënul leen parce que lépp ci préparation yi dem mais ñi lay jàppale te partenaire ñooñu il faut ñu remercier leen te loolu moo normal vraiment ñu ngi remercier le maire de la Médina Euh, vraiment muy Bamba Fall jàpp na ci combat bu baax Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom it Messi euh, jàpp na ci combat bu baax a baax a baax hmm? Cheikh Seck ak waa commission jaraaf ñoom Youssou Diall vraiment jàpp nañ ci combat bu baax a baax Gora Camara la l'international euh, basket bi nga xam ne moo ne fële ci Italie moom jàpp na ci combat bi Ousmane Sy mi nga xam ne vraiment moom it ndey ji seex lay tëdd jàppale na ci ñoom Max. ñoom euh, le directeur général bu nekk euh, bu hôpital Youssou Mbargane fee ci euh, Rufisque mooy mention spéciale waaw Pape Mamadou Ndiaye jàpp na si combat bu baax a baax a baax vraiment di remercier aussi Papi Djila Bouji moom it jàpp na ci combat bi mille pour cent bi jàpp nañ ci combat maanaam vraiment ñëpp rek ñi nga xam ne tey mënuñu lim ñëpp wala suñu xel day fàttu les supporters les supporters les comités le comité d'organisation gis na organisation bi pas amul benn faay lépp dafa nekk RAS rien à signaler donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant jaarale euh, nuyoo bi si murit mi toog seen wet kontaan nañu gis na ne moom daal bi pas open press yeeg lamb jaag ñëpp ñoo yoroon billets yi te ñëpp gisuñu si lu dul lu leen neex kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne daal incha allah tant que yoon jeexul waa waa xasul jeex incha allah ñu ngi ci yoon bi di ñaan yàlla àgg si jàmm jërëjëf. le 31 décembre lay doon fii ci arène nationale diggante booy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak caatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le 31 décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production